waaw merci beaucoup merci beaucoup peut-être man la xalifa président écurie Tay Shinga donc euh, man li may li ma mën di wax rek man interpellation bi may def dama koy interpeller mooy les autorités de ce pays là. parce que làmb buñ koy wax école ak écurie yi moo tax ñuy wax làmb. école écrit moom la promoteur yi di seet si moom la ñeneen di seet pour lamb mën am mais su fekkee daa am loo xam ne dañ ko war a def ci làmb ñu war a waxtaan ci làmb dañu war a woo toutes les composantes de la lamb à commencer par les présidents les responsables des écoles et des écuries parce que ak lu mënti demee ñoom ñooy base bi parce que foofu la mbër yi di jógee pour mën a bëre ji man mënuma comprendre ñuy woote pour discuter nan la ñuy ubbee saison bi wala nan la ñuy joxee les subventions yi nga xam ni moom mooy dem ci par rapport ñi nga xam ni euh, ci dañuy yëngatu ci làmb ñu bàyyi école yeeg écurie dem di woo des des des promoteurs des amateurs en quoi les promoteurs et les amateurs sont plus impactés que que que que les les écoles et les écuries je crois que li ñuy def nii c'est justement du poli euh, populisme la ñuy def di xool ñi nga xam ni peut-être ay ay ay ay ay ay lobby yoo xam ni dañ leen di woo prétendant que ñoom ñoo yor lamb ñu lamb bi lamb bi c'est les écoles et les écuries su fekkee daa am na loo xam ni dafa jógee ci nguur gi mu doon xaalisu sénégalais yëpp ñu war ko damper les sportifs particulièrement les lutteurs dañ leen war a woo les responsables des écoles et des écuries xool en quel point la ñuy impacter ñu ñu ñu ñu ñu subventionné leen à à de ça mais li ñuy def nii jëmul kër parce que lamb ñun ñëpp moom moom lamb donc su amee loo xam ne dañ koy waxtaanee dañu war a woo ñëpp ñu woo ñii di bàyyi ñii wala di mujjee woo ñii waaw ñun loolu mooy suñ li nga xam ni moo ñu naqar te saison beneen saison lañ jëm si la si suñu continuer di def lii ñun ñun nous n'excluons pas de ne pas réaffilier parce que mënuñu nekk di affilier wu di réaffilier wu ci loo xam ni on ne tient pas en considération joxuñu ñu benn considération donc dañuy woo les autorités que ñu saisir les les ñi nga xam ne ñooy diriger lamb ji ñu xam lan la ñuy def parce que affaire bi faut pas que ñu def ko affaire lobby damp ay ñetti nit ñu dem yóbbu subvention yi le reste toog di galérer parce que dans les écoles et les écrits y a ay xale ñoo fi nekk nekk nekk si ay situation yu difficile ba tax ñenn ñi di di jël gaal di dem di def leneen ak leneen ak leneen donc il faut que les gars ñu xam savoir raison garder jéem a xool responsables des écoles et des écuries ñu impliqué leen processus boobu boo xam ne dañ ko war a def par rapport a lamb nan la war a demee ak nan la war a jugee loolu mooy li nga xam ne mooy li nga xam ne moo naqari gars yi merci